Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de vous aider like, merci de vous aider merci également Gaël de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des information, box Sénégalais, en hein, fait pour les montagnes 14 régions du Sénégal, Rokhouroukhar, Gorgorkhar, Niglen, Djadjefel, ñi nekk également ci lalu hôpital yi ci kër de tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngi wér ak jàmm ñi nekk ci yi aussi erreur judiciaire gi ñeneen ñi deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen dès le leen seen i njaboot de dëddu àdduna suñu borom xar leen aajale fi daw si gars yi te ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu gars actualité bi ñu fas yéene waxtaanee ki nga xam ne nag Jordan Anderson moom moo génne na gars attaqué ñi nga xam ne donc waa Liverpool ak aussi ñi nga xam ne donc Jürgen Klopp mu mel situation bi sa Sadio Mané dundoon mom lay daal di jamono ji euh, ñu daal ci indi ay leeral mais la boobu nak wa NBA yi bon ñoom États-Unis hein, c'est seen jour NBA dem jouer ci coupe du monde bi ñoo dal di dóor Italie 100 à 63 loolu nag tax ñu dal di dem qualifier ci demi-finale yi donc correction là de l'équipe américaine bi nga xam nak ci tournoi bi rek ben défaite lañ am te défaite bi ñu am sen équipe B bi lañu dal di dougal ki nga xam ne gaay gars yi ñaan yi Fabio Capello moom xam ngeen moo euh, kii di Mourinho histoire bi yàgg nee fi ne nii waa euh, ñii di waa AS Rome li ñuy encaissé si biir bëri lool nee depuis demu Manchester bi te match war woon dem moo la indi problème il faut que trouver benn milieu terrain boo xam ne day mën a combler li nga xam mooy donc départ Manchester sinon du daal di baax benn yoon ci euh, ñoom jëm ci également ki nga xam ne gars yi mooy donc Qui dit José Mourinho xam ngeen Capello Ben, moment jabarou Capello José Mourinho ah. Ah, non ki nga xam euh, Benitez euh, Mourinho Mourinho mais dafa Mourinho ah. ki nga xam donc euh, de Marseille qui nga fi Dimeco ci style de jeu bi football fi pendant ce temps nga xam Anthony Anthony gis ngeen boo moytuwul li daal machine Gouloumbou moo koy dal ndax jabaram dafa génne saa waay da ko doon dóor ba damul loxoom et tout et tout baaraamam et tout donc on a fini. ne nii dafa mel ne moom daal boo moytuwul li daaloon Greenwood bu fekkee c'est confirmé moo koy daal ndax Manchester United mel moo tax mu di mais son Greenwood entre guillemets ki nga également mooy Wan-Bissaka mon nag contrat am fin de saison bi La jeex option d'une année supplémentaire Bon, xam fini fi Manchester ni ngi waxtaan ak ak agent pour daal di koy prolonger euh, peut-être pendant ça aussi Manchester un groupe bi nga xam ne moom di bind inscrire les pour ñu jouer Ligue des Champions ki nga également donc Donny van de Beek beaucoup ci Vandebek bi nga xam ne jamono ji dal dama moy gën di euh, leer ndax du côté de la Turquie dal lay lañ koy tudd ben moment ñu doon wax Espagne fi mu gis ngeen mercato bi dal Turquie ak Arabie Saoudite ñom ñoo ci daal di dess ki nga xamné nak gaay nak yi entraîneur en ah, Van Gaal donc bu ah, donc Olom néna euh coupe du monde bu Messi bi dal dafa mel gaay dañu def lépp pour jox ko c'était prémédité prémédité plutôt donc nee na ko moom gars yi bëggoon Messi jël ko mo dama jël ko mais gaay yi jaaxal mooy ñom ah, Argentine série le penalty dañ leen dóore fofu lan la ci gaay mëna def dara c'est ça mom problème ko ay ci bir nak ñoom def nañ ay foot yoo xam ne moo ngo comme aussi ni ko Argentine defee Lionel Messi bi nga xam ne nag Adidas génne na ko bees dàll yi gis ngeen ko moo nekk nii dekk daal yo xamné ne dañ ko defal spécialement pour mom euh, en hommage à la coupe du monde bi nga xam mom la daal jël donc dal yi moy dal yu Adidas génne nak yu nga xamné ne yu bees yu Lionel Messi la poule ga hendrick na yi mom nee na rêve am jouer ak ki nga xamné moy mooy di Kylian Mbappé ak Vinicius Junior ci même équipe hein. donc boy bi nga xamné le joueur du Real bi nga xam Real moo mom mais da ko àll club ba am âge maturité pour daal di ñëw Endrick donc né lool mo nek bëgg bëgg mais ciow lek hendrick moy ko ne mom dafa né aussi Karim Benzema mom ba ba muy seetaan Karim Benzema boobu Karim Benzema mi ngi Lyon <laughs> gars yi nag daal di koy vaar ne ko booy yow Benzema bi muy nekk Lyon c'était en 2006 yow yaa ngi judd léegi nag wax ñu ndax yow <laughs> da ngaa dem ñëwaat wala nu mu demee noonu wala bokk euh, daal en tout cas daal moom loolu la wax gars fi ne nii xam nga gars moom. mun ba duñ la vaar kii nag également ngeen gis ni di Lopetegui mom dal dañuy euh, xelmati ne boo metu daal moom moo nar di nekk nouvel entraîneur du Villarreal parce qu'actuellement Villarreal ils sont en difficulté donc Julien Lopetegui daal la ñuy jàpp ne moom moo nekk grand seen favori bi pour dal di fay ñew ki nak également di de euh, Vildad donc di sélectionneur bu ñi nga xam moy donc bu Espagne jigéen ñi moom daal ñu ko par rapport à li nga xam situation bi foofu donc parce que gars yi jàpp nañu da doon kii nga xam mooy donc groupe yàlla sunu jàppal tànk et tout moom nag fi mu ne nii aussi daal dàq nañ ko ki nga xam ne mooy César Azpilicueta nee na booy bu talentueux ba mu ñëwee ci équipe bi dama ne ko booy est juddoo ko woon. nee na daal nekk na booy boo xam ne aussi heureusement bu mu tànnee Espagne ndax euh, booy bu am talent la loolu daal ki nga xam ne mooy donc euh, Azpilicueta daal di wax ci moom kii nag di Xavi Simons booy bi waa Paris Saint-Germain seen booy li ngeen am problème moom lañ tab tabb nag meilleur euh, jeune joueur et meilleur buteur également du championnat allemand plutôt euh, hollandais à son âge hein, par rapport à catégorie ki nga xam ne donc Xavi Simons ki nga xam ne également moy Mariano <laughs> Diaz néna na juróomi at ci ginnaaw Séville daf ma bëggoon mais man dama dem Real way fi mu ne nii nag daagu fi ñu ma nobee loolu dafa bëgg retrouver niveau bi mu amone loolu dal Mariano Mariana Diaz la wax le joueur de du FC Séville ki nak du Jordan Anderson gars mo moo génn wax lo xamné gay gars kenn yaakaar wu ko ci mom mu ñu fàttali un peu situation Sadio Mané du côté de Liverpool ndax moom nee na euh, Liverpool daal dañ ko dañ ko joxul cër loolu la wax parce que nee na moom bëggul woon dem te gars yi également dañoo bëggoon débarrassé wu ci moom ah nee loolu lañ ko loolu lañ ko won te moom yàgg na fa léppam fa la ko def te Liverpool doom yi fa lañ juddoo munta woon dem jouer beneen club boo xam ne mi ngi ci Angleterre parce que am na proposition nee na daal respect bi ko Liverpool waroon jox joxu ko ko loolu la sentir sentirul ne dëggantaan dëggantaan bëggoon nañ mu toog même bu fekkee ne comme je dis moom nee na defuñu ko proposition

Devil gars yi li ma nekkoon information di lay wax nak bonne nouvelle vidéo bi duguna dem len xol ci Baba Show lien baa ni ma def ko ci description bi épingle ko également la vidéo sur Bruno Metsu Abdou Karim Metsu gars dem len ko seetaan di fatali rek ne lo dama ko fàtte ci vidéo bi 2012 Bruno Metsu il avait il avait failli tout est de suite bu ñëwaat nek sélectionneur bu Sénégal mais malheureusement fédération jox ñuko ñu dem tan un certain Le Chantre bi nga xam ne mujjantal gi eggaliwul li ni mel finalement Bruno Messi ne redeviendra plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal gars yi li mu nekkoon information yi rendez-vous tout de suite sur Baba Show leen seetaan vidéo bi abonnez également ci sportive yi gars yi abonnez leen abonné leen la famille su baaxee si yéen la su bonee suñu la jaa ngeen jëf